yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñuy jóg di way sang be salaam waaw man maa ngi tudd Serigne Khadim Mbaye noonu la tudd Khadim Mbaye nga tudd yow lan nga fi si lan laa fi man de taalibe laa fi doom laa fi lépp laa fi waaw te waaye nag taalibe gi moom a gënal loolu yëpp ndax sëñ Béthio moom sama wajur ñu bokkul lépp waaye nag ci biir bokk boobu li ma ci gën a neex mooy sëriñ tubaa min bokk te ñun ñu doon ay taalibe nekk ci Serigne Touba loolu nag moo nu gënal bokk gi foofu ndax ñun si Touba nu gënal lépp. waaw. gis nañ ni ren sëñ Saliou Thioune euh, nekk doom si Cheikh Béthio Thioune gis nañ ni euh, ren mu def euh, benn mbir ba nga xam ne bu doy waar ba sénégalais yëpp di ko coow mu ne ñii naan ñii naan ëpp na ñii naan moom dafa toppaat si tànku way wayjuram bu góor rek noo ko noo ko jàngatee. waaw loolu de jàngat bi yomb naa tontu ndax sëñ Tuubaa moom tey tayam ñu ne day foofa démbam. te Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ni moo doonoon liggéey bii di ko def di ko liggéeyal Serigne Touba ba àdduna sépp maase ci màggalu Touba bu ñëwee xel yëpp dem ci moom mbiram nii rek la mën a mën nii rek la war a mën a demee ndax Serigne Touba moom ku koy liggéeyal ñemewul bar daam pay taamam bu baax bi ñu ngi koy ñaanal di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu tawee di ñaanal Serigne Saliou Digal ak mboolem njabootu Serigne Béthio gi yëpp waaye lii moom wax dëgg yàlla ñu xamul mën na leen a jaaxal waaye ñi xam mbirum Serigne Touba mën na leen bañ a ndax mbirum Serigne Touba mooy doxee noonu tey ñu ñëw day faaxoo dem bam suñu béykat nag bu fi bàyyee taaw bu mel nii mate ko sëkk def xalifaam suñu béykat naan def benn mu def ko ñaar ba def ko fukk loolu kat ak cant képp lañu war a jóg ndax ñun ku ñu xam-xam ne ci ak cant te bis bii li muy ree rée rée Serigne Touba ak cant la ci woote Serigne Touba ku ne xam na ni telewul dara waaye yëg na ak cant gis digganteem ak sunu borom xam ni dem na ba moom ne jàpp na ni lottu na ci tax mu woo ci adduna bépp woo ci julli lépp ni bés bi kat bu dikkatee nañ ma ci santale sunu borom li ko dalee ci ginaar ba ci gileem kon nag bu yàlla defalee tawfeex ñu doon am murit ci Serigne bi bu ñëwetee xam ne nag amul yomu waay ndax cant gi sax boo a sante ndax la ko defal kon nag li ñuy ñaan rek moo na sax def lépp ndax Serigne Touba mënoo ko yéene lu la defalul waaye yàlla gën noo kattanal te bàyyi ñu fi at yu bare bare bare bare te yokk suñuy xéewal yokk suñu wér yokk suñu mucc ba bis bi saa ñu ñëwee rek ñu fàtte at ma ca ginnaaw at mii foofu ko di dem. nañ kër gi dañoo gën gën a booloo moom union si si ginnaawam mu nekk tamit lu rafet lu lool loolu lool noo xam nga yoonu murid noonu lay doxee ndax yoonu murid ki mag mooy jiitu ñu topp topp yoonu murid moom man ba yoonu murid sasoo ba tey Sëñ Tuubaa noonu la sasoo yoon bi ndax sëñ Tuubaa mbiram daa doon luñ mën a wax nii ci ay télé ak rajo ndax mbiram daa yemul fenn mbirum yàlla la rek mënu mënu fa wàccel sëñ Tuubaa mënoo xalaata xalaat wax ci moom dara ndax loo wax tamit di am loo maanaam li ngay wax nii asakay li nga bëgg a wax la mbaa tax du am xam-xam ba kon kay li ñuy def mooy sëñ Tuubaa moom lim ñu waxoon ni Touba li habdil muridin saadihin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati ba it boobi naa ne ku ci nangu moom li nga def lu neex sëriñ bi ndax mënoo tax def leneen lu bokkut ak loolu kon bëgg gi ak liggéeyal gi rek lañ ci mën a xam te sax ci te fu mu nañ ko yàlla gën a bëgguloo ñu koy gën a man loolu daal laa ci mën a tànkal waaye mbirum Sëñ Tuubaa sax doonul mën a wax ndax mënoo cee wax dara ba xam ba mënoo cee xam mënoo cee wax kem maanaam maanaam li nga bëgg a wax du ci xaj ba tax na na kon li ñuy def mooy cant gi daal ñu ngi ñaan mu sax ndax ku sant yàlla yokk yàlla yàlla moo ne ku sant ma dool ji la in sakartum dan azidannakum te ñun ñu ngi sax ci cant gi kon nag ñu ngi ñaan yàlla gën noo wéral gën noo manal yokku na ci lépp lu baax ba saa su cant gi ñëwatee rek ñu gën koo man nañ ko mënewul woon fi ma waxee ak yow màggalu déwén gi incha allahu rabbi ñu ko tàmbalee waajal dimbale waat déwén bu déwén la ñuy waxaat. mais kon na nañoo wax benn rel yi euh, nawoon fa woon daal. waaw xam nga cant gi cant suñu Saliou moo na ko jàngaloon suñu Saliou moo na cant bernde bernde nag da ngay rendi togg sa ay ñam yu neex di ko séddale te loo ci am xejj ak seel. boo noppee ci loolu yëpp nag toilette ba rafet taxaw ca mbooloo ma wax li yàlla defal ba nga koy sant te kon xool xam ne nag ñu ngi sant bu baax a baax yàlla bàyyi wuñu ci saayir bàyyi wuñu ci baatin sant nañ yàlla bu baax a baax ci boole gi mënu boole Sëñ Tuubaa man amee Sëñ Tuubaa am lépp ndax loolu mooy cant gi ndax xéwal yi ñëpp a ci xaj moo tax kenn ku ci nekk sa cër bu ci sa wërsëg nekkee nga am ci cër dañ la koy jox. noonu nii rek la tëdde ndax bis bii moom toll na noo xam te fi nii nag yi nga fi gis ak giléem yi ak xar yi loolu ñu ci xaj bari na lool mën naa ni ñëpp a xaj ba tax na nag kon loolu taalibe yi rek a tax ñu jënd ko ak bis bi kon kay dañ koy delloowaat ci bis bi rek bis bi rek a tax ñu jënd ko ñaan ñu gën a góorgóorlu ci suñu diggante ak suñ tubaa te xam ne suñ tubaa mënoo ko defal dara ba dab li nga ko war a defal xanaa nga ne ci rek bañ a yokki bañ a tayyi ne ci rek ne ci rek ndax liggéeyal suñ tubaa ñun moom ñun moo na fi dese ci àdduna te ci lañ bëgg a def suñu dund ngi ñaan yàlla fekk suñu ci ak ndimbalam ci barkeb Serigne Touba di ñaan nag suñu Muntaxa yàgg fi loolu tamit di ñaan njabootu suñu Béthio gi njabootu Serigne Touba gi yëpp góor ak jigéen yàlla bàyyi ñu fi at yu bare bare bare te at mu ñëw foo xoo ma ca des ci ay ngi leen di jaajëfal yéen wasaare ñu ngi fépp ci adduna bi te yàlla def ci barke ci barke Sëñ Tuubaa ñu ngi bég bu baax safar terootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti na sunu derot yëngooti na sunu sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang be